frère maa ngi lay. maa ngi lay fay mon frère di la bëggee. maa ngi sant bu baax. mun naa ne yéen ñaar benn ngeen. bis mu ban sedd laa ci am. parce que kiñ ko tuddee moo topp si man maanaam bu jox ko mu naam. mu ne xale bu baax. ne xale boo xamante ne dafa liggéeyal làmb. amaana man lañu ñu xam. ndax man maay feeñ ci écran bi. mais lu bari lu may liggéey. moom moo koy defar ba mu baax. jox ko karaajo. lu bari lu bari luy am ci làmb am na yu bëri yu am ci làmb moom la moom moo ko liggéey muy nekk xale boo xam ne xale bu yaru la xale bu am cër ci doomu aadama respecté respecté magam mais papaam gërëm ko yaayam gërëm ko ndax cër bu am solo bi nga xam am na ko ci kër gi waaye tamit mi ngi ko cër bi nga xamante mi ngi koy jox doomu aadama yi xale la boo xam dañ koy ñaanal la defal ko jàmm yàlla defal ko taw féex ndax vraiment sama fierté la man sama fierté ma ñëw ci bis bi ñu ne sama raq lañ ko tuddee xool bu sedd laa ci am. ma gën ci moom wax ji bariwul ndeysaan boo ko gisee dafa yaru dafa dal dafa noonu la mel ci kër su wax ji baree man la su liggéey bi baree bu liggéey bi baaxee moom la kër ga sax du wax ñi ñu bokkal sax ñi ñu dëkkal sax dañ naan Pa Modou yàlla moo ko yaral boppam noonu la mel xale bu baax xale bu yaru la vraiment kontaan naa ci yow. Pa maa ngi lay siyaar bu baax. mais ana suñu tànta. may naan suñu tànta. <laughs> mi ngi ci jàmm. mi ngi ci jàmm. baa yow yaa ngi ci jàmm. maa ngi kontaan si yow bu baax. di bëggee bu wér. tey ñu jël bis dara jaale la ko muy troisième édition sa diggante ak Gibson ak bis bi fan la toll ci. waa diggante mag ak rakk mu nekk suma mag bu ju baax troisième fois bi mi ngi nii mu jël drapeau di ma ko duppee mu nekk lu ma neex vraiment xool ci man lenn. lu dul gis ma sopp ma bëggal ma boppam di def lu mel nii si man chaque fois vraiment ma ko siy ñaanal sunu borom sunu borom yokk ko ba lii nga xamante ne ci moom lay yëngu ci wàllum promoteur mu dem ba nekk si le numéro un te incha allah dinañ ko àndee ak moom te lépp lu si lu mu laaj dinañ ko jàppale ànd si ak moom ci barke Seydina Mohamed. Pape Modou euh, Modou mbay rek la ñuy gis ci caméra bi mais Pape Modou bëri na liggéey bu rafet boo xamante ne mu ngi koy def ba àdduna bépp ràññee ko. sa diggante ak du lal la. waaw diggante mag ak rakk la parce ñun moom ay homme de l'ombre lañ parce yàgg nañ ci média ndax bii mooy suma juumul suñu treizième année d'expérience si wàllum audiovisuel boobu Mamadou kii la woon joueur la woon waaw mu dem nag ba am fu liggéey bi toll falee ka am koo xamante ni moom lañuy teg ci kanam te toujours moom lay doon moom lay doon mu nekk loo xamante ni lu mu bëgg la lu mu fonk la lu mu lu mu mérité la te lépp biñ ko tegee ci kanam ba tey li mu laaj mi ngi koy def ñu ko si ñaanal suñu borom kattanal ko ba lépp fépp foo xamante ne El Hadj Bécaye yegg na ci moom mu raw ko ndax lii lépp moom la El Hadj ndax ñun bu ñu nit gisee ba ñuy bëgg ba ñuy sopp moom la bu ñu nit gisee ba am lu muy def si ñun rek moom la ndax ñun duñu dara ñun ay jaamam lañ ay taalibeem lañu. di fas yéene liggéeyal ko ba dee ci kattanu Seydina Mohamed di gërëm sunu yaay Mbaye waaw ndax jigéen ju jàmbaare la ndax moom moo jàppale sunu papa ba li yëpp am di ko ñaanal sunu borom guddal fanam yokku wéeram di gërëm sunu soxna ah sunu soxna bopp Anne Marie sunu soxna bopp Awa Ndiaye sunu soxna bopp Amina sunu waa kër vraiment bàyyiwuma kenn sumay papa sumay ndiyaay ku fi nekk kenn mbaay mbaay ñoo koy ñoo ñëw jàpp si bés bi sonn ci bés yi yal na leen suñu borom fay kii nag ma rakku papa la moo fi teewal alaaji Bekaay moo fi teewal alaaji Ousseynou mbay moo fi teewal toute la famille mooy suma kilifa. kilifa looy wax ci bis bi nga xamante ne tuddee na. waaw sant rek xanaa di gërëm promoteur bi bi ci des di gërëm yaayam faatu Mbaye di gërëm papaam Demba Mbaye ak papaam Ousseynou mbay di ko ñaanal wérgu yaram ak tan moom dafa mérito bis bi lii may wax ma toog papaam wax ko gërëm na ko papaam bu fi nekkoon dina ko gërëm comme que papaam dafa tukki nekk États-Unis man maa ko fi nekkal maa ngi koy ñaanal li mu mën ren yàlla na ko mën déwén ci barke Seydina Mohamed bi mooy troisième édition bi dina dem ba vingtième ndax mérito na ko merci